parité bi ñuy wax d'abord terme bi je pense qu'il faut bien le revoir parce que bu ñu naan parité donc ça s'applique à un cadre légal bu concerner les assemblées euh, électives muy assemblée nationale muy muy collectivité territoriale yi euh, ça ça s'applique pas à un gouvernement mais au-delà de cela il faut comprendre que Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dañoo nekkul dans une dynamique de de quota xam nga bu ñuy wax parité affaire quota la ñuy wax. jigéen ñi dañuy am temps góor ñi am temps wala ñu naan région yi dañuy am temps euh, ethnie yi am temps. tarixa yi am temps lo loolu mooy dynamique yi ñuy tàmmoon a gis. ñu ciy defaree gouvernement Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ils ont ils ont estimé que sur chaque poste. nañ dem xool ñi nga xam ne jàpp nañ ñoom am nañ confiance ci ñoom suffisamment te mën nañ liggéey bi en tout cas am nañ une présomption de euh, de compétence une présomption d'efficacité dans li nga xam ni moom lañ leen di dénk donc ce sont ces deux critère mais aussi nag la ngay boole chaque fois mooy le critère de confiance personnelle donc de celui que ak le critère maintenant de compétence supposé dans le post bi nga xam ni moom la ñu nommé mais je pense que globalement sénégalais yëpp vraiment sénégalais yëpp qui sont de bonne foi rafetlu nañu gouvernement bi. di xaar nag. Ah, ñëpp ñëpp rafetlu nañ ko ñëpp am nañ ci donc un a priori favorable. ñu bëri. man man ñi ma gis ñëpp ah wax dëgg yàlla ñu ma gis ñëpp gisuma gisaguma ku ci am a priori favorable parce que. nit ki bu dee liñ ko nommé xam nga ne xam na ko techniquement xam na ko professionnellement am na ci xarañte da jàpp ni ah am naa njortul ni dina mën a réussir mission bi biñ ko biñ ko dénk en attendant nag maintenant donc euh, la la vérité parce que nag gestion de l'État <laughs> euh, donc loolu aussi beneen beneen métier la bu bokk rek ak gestion technique si sa domaine de compétence bi nga xam ne moom nga nekk